loolee di li ngeen mësul gis ci juróom-ñeenteelu édition bi kuréelu ëmb éleveur yi nekk ci Thiès foofe nag xar yi ñuy wax laadum yi gën a rafet ci Sénégal moom lañ fay wane ñu defee ka nag ci place de France ngir yëf yi gën a mën a rafet. askan wi jóge fu ne ngir ñëw teewe événement boobule nga xamante ni exposition bi wane na ay xar ak yeneeni mala yoo xamante ni kenn mësu ko woon a tribune be nag nga xamante ni ñi ñu invité fa lañ toogoon mën nañ ci gis ay kàngam bu ci mel na gi ñu dénk wàllum élevage ak production animale di Ali Saleh Diop moom nag ñëwoon teewee cérémonie officielle ba kikugungewon koba jatara yor jawrin ginyu deng denk wàllum ak wante item batai cagania presiden fenafo abukan nyu ak délégation bubere. rek événement bi amna jéego bu rëy bu mu tekk ndax lu ëpp ñetti téeméeri nit ñoo daan ñëw bés bu ne ngir xool salon boobule nit ñi nag di jóge fu ne ngir ñëw xool exposition bi waa Thiès mbég loolu ni événement bu ni mel mësuñu ko amal ci seen dëkk boobule. ki yor wàllum communication bi Amadou Texe Ndiaye di dellu si ci li nga xamante ni moom lañu tegoon ngir organisation wu juróom-ñeenteelu édition bilee wa boo xoolee euh, organisation bi laa njëkkee par rapport ak fii nga xam ne moom lañ ne boo xoolee nouveau bureau bi bu mu ñu jël ko mois de juillet 2019 dañoo amoon ay défi défi yi moom mooy ñu jëlee ko fi ñu nekkoon indi ko donc fii nga xam ne mooy promenade des Thiessois boo leen xoolee bi commencé bâche fii waa Thiès yëpp doon woon mënul ne parce qu'il n'y a jamais eu une activité pareille ici à Thiès jël place bi yëpp occupé bi euh, promenade des Thiessois bi dem ba niveau Agora bi mu jël ko donc c'est une première donc loolu ñu xam ne benn équipe jeune ñoom ñoo ko def mais aussi euh, sous la houlette du président d'honneur docteur Pape Ali Dior bi nga xam moom moo ko doon diriger diriger yi ñëw ànd ak mag yi nga xam ne ñoo si nekkoon ñëw ñoom ñëpp jàppale xale yi ñi nga xam ne léegi ñoom ñoo yor leng bi. éleveur yi jaajëfal bu baax organisateur yi nekk ci Thiès yi nga xamante ni def nañ seen kéem ba li nga xamante ni mooy foire ba mën a egg fii mu egg tey. fii daal ku fi ñëw soxool seen organisation bi jaar na yoon trop trop xar yi rafet nañu teg nañ ñi ci nit ñi dans de très bonnes conditions lu Dakar di sori sori dama waxoon benn yoon ñaari yoon laay ñëw ci foire bi waaye fu mu toll nii saa yu ma xëyee ñëw te li ma fi gis itam moo ma ko jaral donc encore une fois nous félicitons ñi ñi ñi ñi bureau bi exposant nous ngi organisation ni organisation bu parce que ñun nous sommes

donc vraiment mu doon li nga xam ne dañ rafet rafetlu waaw teranga bu rafet vraiment di ko rafetlu di remercier Khadim ak euh, tout le staff euh, de Reit ça a été très difficile parce que dañoo ñëwoon tournée bi dañu romb deux box il s'est trouvé qu'en ce moment on est box sans pour autant compter liste d'attente bi ñu amoon liste d'attente boo xamante ni vraiment ëppoon na cinquante personnes ñoo xam ne ñoom ñëpp bëggoon nañ dugg mais aussi à l'impossible nul n'est tenu et puis boo bëggee am organisation bu mucc ayib il faut aussi des fois nga mën a jël yenn yenn mesures yi loolu rek moom moo tax ñooñu mën ñu woon dugg mais ñu xam ne ñi fi nekk bari na tey jii saint am na fi ñu fi nekk euh, Thiès pratiquement amul région Sénégal du mos amul pratiquement région boo xamante ni yónneewul ay ndawam ñu ñëw mais yemul foofu parce que tey jii boo xoolee Mauritanie dañoo ñëw jëmmal bis bi waa Gambie bëggoon nañ ñëw mais malheureusement problème transport bi transporté xare yooyu quelque problème loolu moo tax mu di ñëw Mali pare bëggoon nañ ñëw donc di wax ne daal attraction bu graaw a graaw a graaw la indi fii au niveau euh, nekk loo xamante ni xam naa dina xaw a métti mais dañ

le ministre de l'élevage il a déployé de gros moyens nous avons rite vraiment ñeu liggé ci liggé bu mais aussi en l'occurrence aussi keneen ko xamanteni aussi mën ko ci citer euh, monsieur maire zone ouest ak ñeneen ñi nga xamne ñu ngi fi nek ay dignitaire comme yang ko ba jattara comme ñeneen ñi ñew taxawu bis bi vraiment ci ak jeunes yi nga xamne ñom ñoy dundal élevage fi en euh, de façon beaucoup plus particulière mom moy élevage laadum. yenn ci ay éleveur bu ci melna ibrahim Birahim Ndiaye ci Mauritanie Siré jakité jóge ci Ndakaaru di wax ni yu ni mel dafa wara am té di ñaax nguuruk Sénégal mu gën leena dimbalé ñom ñoñi nek ay ndawuk éleveur. alors suñu ñëw si biir réyit bi il a fallu que ñu inscrire euh, jël Ben box euh, nekk aussi membre euh, pour l'avenir euh, dans le dans le souci d'abord de venir s'évaluer parce que dañu ñëw évaluer suñu bopp parce que ñun dañu nekk ci amélioration tamit donc mën nañu wax ne les souches fii la jóge woon mais dañ leen yóbbu Mauritanie liggéeyaat leen ñëwaat ci ci ci organisation bu mel ne pour ñu mën a natt suñu bopp xam ñun fu ñu toll ci élevage. waaw euh, ñi ngi ñi ngi def expérience boobu man bi ma duggee ci laadum dama ñëw jële ko fi gars yi toll ci ci liggéey bi. waaw jëloon benn doomu champion doon euh, colonel di doomu galactique euh, jëloon ko comme géniteur yóbbu ko yóbbu ko Mauritanie jëlaal jëlaale quelques femelles liggéey si dama ci liggéeyee ba am ci des résultats mën nga mën nga natt nattu kër xam à peu près foo toll mais boo ñëwee dans des organisations comme ça da lay may une une meilleure visibilité euh, ci natt bi nga xamante ni bu duggee si machine nay leer dana loox yow fa nga toll si élevage te lii leen ci bëggoon mu yaatu ba ñun itam ñu mën di ko exporter te na gaa yi jublu ci loolu loolu mooy liggéey bi fii naam suñu biir la nañ ko tas ci région yi waaye nañ ko tas aussi si su région bi pourquoi pas génn continent yi dem Europe ak Amérique feneen te loolu gëm naa ne mën nañ ko donc ñu ngi ñaax ministre bi nga xam ne sànq lu mu ñu ci mën a jàppale ñu gë ñu jël ndax gëm naa li ñu liggéey ci jur surtout ci wàllum xar gëw ma ni beneen continent wala beneen réew ci àdduna am na ko donc kon ku ñu jàppale ci loolu accompagne ñu mën di génn ci foire yi di génne suñu xar yi dem di ko wane wan lii Sénégal moo ko moom la laa dum see c'est c'est typiquement sénégalais Sénégal moo ko moom donc suñu réew moo ko moom suñu sag la li ñuy jàppale nag ñu génnee ko tas ko loolu dañ ci dañ ci kontaan di ci ñaax ministre bi nga xam ne guddi yi moom la fi yàlla teg ak keneen ku dul moom te war waruñu see mën a jàppale muy président bi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne war nañ see mën a jàpp fu yàlla dogal nga am doole wala xalaat wala xel mu rafet moo xam ne mun na ñoo dimbali rek pour loolu antu ñu ngi leen ci woo di leen jàppale te xam ne lii ñun ñoo ko moom ñu Sénégalais donc kuñ ci ñu jël gis nañ fi suñu bi bi bi waa Thiès di liggéey gis nañu euh, niveau bi waa région bi yëpp di liggéey parce que mën nañu wax ni presque région yëpp ñëw nañu euh, élevage bi daal tey jii fu mu toll kawe na kawe bi nga xamante ni waaw liggéey rek moo la ci génne. waaw ah, bu ma amee lu ma ci jàpp ak li ma mooy état bi gën leen a jàppale gën leen a dooleel ndax tey gis ñu xew fii ci Thiès nga war a xam ne jeune Sénégal mérité nañu ñu jàppale leen parce que ku leen xool xam ne ñii liggéey la ñu ay yàpp ak leen dootul manqué fii wala xaru tabaski parce que jeunes yi ma gis fii nii tey li fi exposé tey kenn xamul nu mu toll wax dëgg yàlla ñu leen état jàppalee daal wax dëgg yàlla ñu jóge ci niveau bi ñu nekk gën a mel ni comme France wala yeneen dëkk yi ci élevage wax dëgg war nañ ko mun a def daal parce que am nañ ay ndaw yu ko mënta sawar nañu bëgg nañ ko surtout amour bi aussi. Euh, ñun déjà on organise des foires donc suñu président est juste à côté Bounas on a organisé plusieurs foires mais bon c'est pas les mêmes dimensions mais c'est quand même des foires yi nga xamante ni à l'avenir, on souhaiterait que mon ait foire régionale, donc au Sénégal. Donc, euh, à l'occasion, on donnera des numéros. Nous avons des foire Mauritanie. donc euh, je président voilà. Euh, Mauritanie dinañ gis Mali mais du yem ci Gambie ak Mali dong dinañ gis yeneen yoo xamante ni dinañ ñëw jàpp ci bés bi parce que tey jii nii ñu ngi xalaat bu ñu ko organiser yeneen yeneen yeneen édition mu dem ba am ñoo xam duñ jóge Afrique jóge ci yeneen dëkk yi jóge Europe wala jóge feneen ñëw ñoom indi ay xeetu xar yu ñu yor juste pour ñu permettre ñu mën a confronter liggéey bi nga xam ne moom la ñor yor ak ñoom seen liggéey bi ñu yor. Sira Jaxate ci kàddoom ni nguur gi dafa war a gën a dëgmal lu ni mel te fexe Sénégal di teew itam saa su ne ci salon international agriculture bi am at bu jot ca Tugal. SIA boobu fa laa doon njëkk bëgg a dem parce que dem naa ko benn ba ñaari yoon muy foire internationale boo xam ne lay dajale. te li ma fay gis muy yéem nit ñi wóor na ma ñun buñ fa ñëwoon loxo dar gémmiñ kon maa ngi ñaan encore une fois ministre bi même le président de la république ak ñi ñu am ñoom ñun suñu xar yi amuñu amuñu amuñu feebar bu leen tere peut-être li ñuy li ñuy tere amaana bu amee Sénégal itam ca ca jur yi féetee région yi wala ci ñi nga xam dañuy sàmm foofu lay féete mais laadum moom wax dëgg yàlla ñun li ñu nangu suñu xar yi ñoom wër na mën nanguwuñ ko seen xar yi donc war nañ mën a génn léegi nag foofu ñun suñu kàddu àggawu fa suñu loxo tam joteewu fa ñoom ñooñ ci mën a jàppale euh, défendre seen ndawi réew te bu soobee yàlla bu ñu demee daañu leen sigil dañ leen sagal incha allahu taala ñu fare ci nguuru Sénégal ñu ci bëri dimbali lañ leen ngir événement bi mën a ñoŋ muy gouverneur muy préfet ak ñu ni mel NMA Sandeur rafetlu bu baax lëkkaloo bi nga xamante ni moom la am ak éleveurs yu Thiès yi rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci wàllum aliment wu bétail. mbégte bi ñaari ñaari ñaari si ñaari fànn la parce que bu njëkk bi mooy Thiès dafa di région élevage képp ko xam ne Thiès xam nga ni champion yi yàgg na fi jógee champion yàgg na yàgg nañu ràññee lool si mbiru élevage loolu tax na. suñu terrain fi mu nekk cest dire ñaari euh, aspect yoo xamante ne bu important. non soutien état moom dafa nekk un soutien indéfectible un soutien boo xam ne vraiment dañ ko gis sentir ko mu ñëw par le biais de son ministre de l' élevage mu ñëw teewal mbir mi mais yamu ci teewal ko parce que tout les démembrements de l' état bu ñu waxee gouverneur bu ñu waxee préfet ñoom ñëpp ñu organiser wu rencontrer le bureau ñu waxtaan en amont. par rapport ak li nga xam ne yëpp moom moo doon organisation ñu taxaw ci moo tax nga gis sécurité bi gis organisation bi gis lépp donc pour dire que état avec tout ses dépendants démembrement jàpp na ci mbir mi tey nag ci bis bi nga xam ne mooy cérémonie officielle ñu yabal seen mise de l'élevage mu nekk loo xamante ni aussi lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu réyal la lu rafet la loo xam ne wax dëgg yàlla euh, mënuñu koo natt donc di remercier encore taxawaay boobu nga xamante ni nguur gi def na ko waaw moom comme ku bees la te miinaguñu ko liñ dégg mu wax nag defuñu lu dul dolli yaakaar gi ñu amoon ci moom ndax gis nañ ni ku ko bëgg la te ku ko war a mën a doxal la ñu koy ñaanal itam moom itam euh, jamono jii ko fi yàlla teg mu gën a neex ci jamono yu fuuf yi wuutu yàlla dimbali ko ci liggéeyam te bañ koo fa xastal di ko wax ni si am nañ yaakaar ci moom te xam nañ élevage war na mën dara ci réew mi war a mën dara ci ndaw mi réew mi xale yi bëgg nañ léeg doole gi moo dul mate donc nan la ñuy def ba mu gën a yaatu ba du ma ne ñëpp jotee si mais la la la masse jot si day am solo. waaw élément nag nekk na entreprise boo xamante ne ni aussi ràññee ko si. proposer ay aliments yoo xamante ne day répondre besoin jur gi di répondre si attente éleveurs yi ba tax na boo xoolee bu baax tàmbalee si sélection matière première yi bi si produit produit produit final yëpp y a un processus boo xamante ne rigueur bu ci yëpp da nga ko ci def moo di matière première bu dugg si usine bi am na laboratoire bi contrôler qualité bi ñu defaree aliment ba pare. day demaat labo ñu contrôler qualité bi ndax répondre méngoo nag ak li ñu soxla si aliment bi Amadou Taxé Ndiaye di xamle ni yëf yi dafay jur ay xëy te loolee nemmeeku nañ ko itam ci foiru RIT bi. Par rapport à, à l'emploi, il y a pas mal d'emplois yoo xamante ni l'élevage mu ngi koy créer tey jii boo xoolee il y a 264 bergeries et pour chaque box il y a un gosse un, un emploi qui est, qui est, qui est créé.

de façon directe économique économie ou dëkk bi sans en compte nous avons xamante ni les petits commerces ils y voient leur compte donc c'est vraiment un truc à saluer c'est un truc à perpétuer et dire aussi que c'est un truc bon. à nous. Nous war vraiment encadrer parce que nous avons une création d'emplois bien bi am ci élevage gëm am na secteur sécuritaire on a travaillé avec le gouverneur qui est le ministre euh, qui est le président de la région.

maa ngi koy wax sànq ne leen xar démb ak barki démb kër euh, Hadj Mansour Mbodj sama maam ju baax jooju nga daan dem sa xol nga kontaan féex ñu dox tuuti ñeneen ñi topp ci ginnaawam liggéey ci lu am solo ku mel ni président Aboukane ak ñeneen ñeneen mun naa lim ku lim juum mais ñu doxaat tuuti gis ni léegi jamono ji ñëpp a liggéey donc maa la gën xar moom da koy nangu rek. da koy nangul nit rek waye man gëmatuma ko ci élevage bi ndax kenn bàyyeetu ko sa morom donc félicitations à tout le monde té li leen ci bëggoon waaw niveau bi élevé na trop sax fuñ ko doon séentu sax passé na fofu wax dëgg yalla amna ñu bari tay bo ñëwon ba taxaw leen wax ni mbote xar tay nañ ko jaay ay 15 millions ñu weddi ko mais man tay ñu la ko gëna firndel gën ko gëm bima ñëwé tay ba gis xar yo xamante musuma xalaat imaginer ni xar mën nañ ko yar ba mu toll noonu c'est la première fois ma gis xar tay yu toll ni yu ma gis wax dëgg yalla fi ci Thiès waaw mën wax ni euh, on est encore euh, au euh, au début parce que ni ni ci c'est une centaine d'éleveurs Euh, loolu beaucoup un petit peu de ci benn quartier rek génne nga génne nga fi cent éleveurs fils Sénégal donc on est encore à au début d'investissement mais am na ñu ci commencé dugg quand même di ci def ay jéego yi nga xamante ni voilà c'est c'est c'est ça commence là voilà non ñun nag yalla dogal na yàgg nañoo exposé ci foire euh, particulièrement foiru Adam man mo ëpp wala mom rek laay daan dem sax Waye tay dama dama supporter ci dama encourager ci sama sama sama sama moroom yi sax laay wax samay frère muy ay xalé yu ndaw en l'occurrence euh, président Karim Fall président wu REIT bu Thiès groupement intensif des des éleveurs de Thiès ak euh, ñamu andal ci liguey bi ñu ay xalé yu ndaw am fitu organiser lu mel nii ñu séntu woon si réussite waaye ñu ñëwee macha allah lañ séntu woon dafa suttu na ko fuuf donc ñu leen ci jaajëfal

Euh, dugg ci élevage bi. ñun nag éleveur daf ñu yàgg a ñor quoi ñoo judd ci xar màgg ci xar ñu dégg ni foire am ñun foire am di dem di seetaan mais ñëw dégg na fii ci Thiès ñu ñëw mais daal wax dëgg yàlla bi ñëwee fii ci foiru Thiès bi daal rëcc wuñ ko daal fekk na ñu ngi gars yi wax dëgg kontaan nañ ci ñoom trop wax dëgg yàlla fekk nañ façon xar mu nekk wax dëgg yàlla am na ci xar yoo xamante tey c'est la première fois ma gis ko fii ci Thiès moo tax foire am solo quoi moo tax ñu jógee ba Dakar NMA Sanders nag kenn demul mu des ndax mu moo nekkoon sponsor leaderu événement boobule gunge leen ci ay at yu bëri éleveurs yi di ko tatagal jox ko tablo bi di ci màggal ki nga xamante ni moom mooy ndem si yàlla Ahmed Amar nekkoon président fondateur groupe NMA Sanders Bassirou Mbodj dellu si waat ci diggante bu ritax bi nga xamante ni moom moo am ci diggante NMA Sanders ak éleveurs yi. waaw partenaire bi nee naa yàgg na yàgg na tey bu xoolee tey sax sunu sàmm nii ak par rapport ak exposants yi bi nga xam ne nous sommes venus en force loolu li ko waral mooy on est sponsor leader te loolu aussi nekk na loo xamante ne ji à travers une gamme aussi à travers aussi participation à des euh, euh, côté organisation côté même aussi même communication aussi ça des l'univers de la et nous et aussi donc l'eau déjà. Euh, image bu ñu dégagé mooy image boo xam te ne mooy permettre ñu gën a am réconfort suñu position de leader bu am nii. def tey jii si à la personne de monsieur Amar dafa ñu ça nous va droit au xam ni monsieur Amar bëgg élevage la quoi monsieur Amar xam ni monsieur Amar jàppale élevage la jàppale éleveurs yi donc loolu tax na tey jii vraiment bu ñu ko rendee hommage nii tey ñun on a cadeau ëpp lii nous avons un au cœur mais quand même en même temps c'est symbolique mais un peu ça ça en euh, c'est dans dans dans intérieur quoi c'est je mais donc nous, euh, ñaan le souffle aussi teeru ko si ajëri gën a kawe rappeur bi nekk itam éleveur di Demba Aw ñu gën koo xam ci ñagas jóge ca Ndar ñëw ak ay bëy yi nga xamante ni ñu ngi bokk ci race nekk ca Afrique du Sud moom nag bokk ci ñaar téeméeri exposant yu teewoon foofu il y a de cela en te était venu chez moi à Gandon pour def benn émission ma wan leen sama xar yi wan leen sama bëy yi wan sama ginaar yi mais seulement da nga naan évolution bi waaw dafa évoluer loo nekk dix ans war na évoluer mhm. et puis euh, élevage bi moo jiitu bëgg bëgg bi ma passion bi am si jur moo jiitu pa way bi parce que depuis may def ay CM1 ay CM2 maa ngi si di am benn petax ak benn picc ak benn et cetera luy nekk la rek quoi musique bi c'est pour xeex rek c'est pour waxal ñi am ñi mënul wax tout ça c'était pour combattre waaw mais bii nii sama passion la si man la bokk waaw am naa fi ay defe naa ay quatre xeetu race par exemple yi seen nopp yu gudd nii euh, yi c'est des c'est des usagers de Pakistan euh, am na yeneen am na benn bëy bu nekk nii mal bi bi kii la nu mu tuddati red de Kalahari day jógee Afrique du Sud xam nga day ay deux cent kilos ay deux cent dix kilos xam am na yeneen ñaar yu tëdd ne takk collier jaune yi seen yaram yu weex seen bopp yu xonq yooyu c'est des boor ñu ngi jóge ñoom it Afrique du Sud waa REIT nag ci noonee la ñu jël ab xarub laadum bu yanj bi jébbal ko jëwriñ gi ñu dénk wàllum élevage ngir tëj xew-xew mi rafetlu vraiment seen teewaay ci foire bi liggéey bi ngeen def am solo di remercier ñepp ñi ci japp parce que li ni bu taxawee c'est pas un travail de deux ou de trois personnes c'est un travail de toute une communauté de toute une communauté mais aussi dire que c'est un travail du bureau mais waa Thiès si petit ci japp au-delà de Thiès Sénégal yëpp ci japp di rafetlu vraiment li di wax né vraiment nañu xaar né vraiment li ci dess parce que dimanche bi la waron jeex mais on a projet prolongé jusqu'au lundi parce que demande bi dafa bari ñu bari bëgg ñëw parce que lundi c'est un jour férié pour ñëw visiter box donc di rafetlu encore une fois pour organisation bi di wax pour amul temps visiter ko jour yi na xaar weekend bi mu remercier ñun en tant que Mauritanien ngi remercier wa di remercier wa Thiès ci teranga yi ñu euh, remercier euh, euh, vraiment tous les éleveurs di wax ni vraiment content nañu si bi yegg nañu ni vraiment. Euh, euh, euh, teral nañ ñu yaatal nañu ñu considéré nañ ñu te vraiment c'est un grand plaisir waaw di di ci remercier tout le monde. Mm. waaw di féliciter waat rek éleveurs yëpp féliciter exposants yëpp ah, di di bëggee passionné yi ñi nga xam ne bëgg nañu te yàlla dogalul sax ñu nekk ci waaye bëgg-bëgg rek moo moo demee noonu. ba pare moo ñëwaat ci bergerie bi di la féliciter yow Ndiaga ak équipe bi nga ànd yëpp di ñaan aussi yi ni ko sunu maam El Hadj Abdou Aziz ci yàlla amin ñaanale woon yàlla na yàlla na gën a sut njort yi mu gën a yaatu law fépp ci àdduna bi yow mii sa loxo nekk ci ak ñeneen ña nga àndal yàlla dooleel leen doog yokku leen kàttan sàmm leen itam yëf yi gën a yaatu daal di jaajëfal itam ñëpp ñi nga xam ne soppee Siré lañ ak soppee bergerie alhamdulilah ndax nit la ñaanal te xamoo ko fala la teranga am ñu mën a yem te yàlla dogal na mu bëri sama côté lool nit ñi daaw des fois dañ lay sopp sopp koo xam ne ñu lay bëggee amaana sax des fois duñ jote ci yow waaye seen xol nangul la ñu toog di la ñaanal benn allahuma doomu aadama rek kenn mënu ko fay ndax yàlla moo ñu sàkk xamuñu ku muy nangul kon loolu mënuñu am seen fay ilaa yombal xiyaamati di leen ci jaajëfal di leen wax ne bu ñu sañoon suñu loxo dana dem fu nekk fa nga nekk wala suñu tànk jëf leen teg yow wala saaxoon teg yow waaye doomu aadama moom ma tëddi ñoo ngi tuub ci manquement yëpp jéggalu ci manquement yi di ñaanal réew mi aussi yàlla ñu si yàlla defal jàmm parce que moom rek la ñu am gaal nag sa maam El Hadj Abdou daan na wax naan boo ci nekkee bu suuxee nga suux da ngay ñaan mu mucc kon yàlla ñu yàlla musal te mosal ñu def ci boo si dara xéewal yokk sawan baara yow nga yàgg fi rek doon ki nga doon sama copain bi di ziar mbokki sénégalais yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. ñu ngi gërëm ñëpp gërëm waa REIT di leen euh, jaajëfal di leen ne NMA est toujours là NMA mu ngi seen la NMA est toujours à ses côtés pour nekk fii donc tey jii

di leen jox rekk dig daje at gi ñu dëgmal bu soobee yàlla